njiiti réew bu Sénégal teewe woon na ñaar fukk ak ñeenteelu édition rencontre économique foofee ci accès en province Macky Sall dellu si bu baax ci mbirum émigration clandestine mu ngi fësal bu baax na xarama ci ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan. li xew jamono ji euh, mën naa wax ni ñun ñëpp la daal di nakar yi ay ndaw di jël gaal gi di génn réew mi di dem ñi ëpp si ñoom di si ñàkk seen i bakkan nekkoon naa njiiti réew. dañuy gis sax ñi nga xamante ne nii ab nañ seen i liggéey dañ ko fay daal di bàyyi dem jël gaal gi ngir rek daal di dem Europe. Macky Sall dellu si na itam ci jéego yi nga xam ne teg nañ ko ngir dakkal phénomène boobu nga xam ne mu ngi gën a woy ci Afrique. nekkul lu yomb benn yoon ñu ngi def luñ mën ngir rek daal di xeex li ni mel ñu ngi ciy liggéey di ci boolewaale ñi nga xamante ne ñi ñoom ñooy marine nationale bi gendarmerie territoriale bi teg si tamit dañuy daal di financer ay ndaw ngir rek ñu daal di mën a amal seen bopp. ci ndaje boobu nag moom mi nga xam ne moo nekk envoyé spécial pacte de Paris pour les peuples et la planète duut na baaraama ci solo Afrique mën a jot ci ay financement ngir mën a suqaliku. mais l'Afrique ngi amal ay jéego yu bëree bëri fii ci Afrique. dafa daal di soxla ndimbal ngir rek mu daal di mënal boppam assurer li nga xamante ne ni moom mooy euh, développement te li ni mel bu daal am euh, jàpp naa ni àdduna bi yëpp moo si daal di njëriñu. loolee sax bokk na ci mission yi nga xam ne am na ko ci kuréel boobu maanaam fexe ba lëkkaloo am ci diggante réew yi rawatina ci diggante noor bi ak sud bi. man li ma indi mooy kàddu gi ci wàllum politique. mu war a nekk nag kàddu koo xam ne ci sud bi la jógee war a ëndaale itam kàddu képp koo xam ne yaa ngi ci sud bi li suñu mbëbët mooy fexe ba dialogue bi am ci diggante réew yi nga xam ni multilatéralisme bi ñuy woote dina nekk lu dëggu ki fi nekkoon jiitu réew nag jàpp na ni Afrique waratul nekk reservoir ressource naturelle boo xam ne réewu tubaab yi dañuy ñëw rek di tibb li mu soxla rek mooy ay financement ngir mën a suqaliku